ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmanirahim allahuma salli ala seydina muhammad wa salim mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziara leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla su borom bu baal jégal ñu ñëpp baal ñu def ci xol iman ak ihsaan yàlla suturaal musuñ ci lépp luy gaaral doomu aadama bi musuñ ci taani musuñ ci lépp incha allah rabbuna di ñaan li nga xam te badar di suba yàlla nañ ci yàlla defal kër jot waaw nga xam ñoo ñoo ko tamit yàlla yokk seen yërmande bu baax a baax incha allah xam naa tey seizième nuit bi incha allah na naafile yi ñaari rakka la rakka bu nekk ñu ngi ciy jàng fatiha teg ci dix isa zulzilatul ardu zilzalaha incha allah waaw su ko defee tey naafile bi ñaari rakka la naafila ñaari rakka bu nekk ginnaaw faatiha yaa ngi ciy jàng fukki isa zuzlat waaw di ñaan yàlla dool ñu sutura yàlla nangu suñu jaam yàlla jégañ suñu rëcc rëcc eh, jégañ suñu lépp ci barke la ilaha illa muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam incha allah asalaamaaleykum